salaamaaleykum c'est Samba Diallo joueur de Dynamo Kiev international sénégalais maa ngi fi juste nag pour di tontu seen question en plus ah, loolu bokk na ci li ma gën a neex ci moom ak euh, vitesse de jeu waaw nu muy ñëwee ba ci nit ki waaw ralenti jeu après accéléré euh, jeu bi encore waaw loolu bokk na ci. li ma gëna neex ci mom ak affaire sociale yi def en plus waaw mom mom bokku na ci tax man sama carrière eh, bëgg na mom ñaan na yalla tamit bon dem ba fu ñuy dégg sama idole bi ñu may dégg si waaw ah, grand club yi waaw ah, lolu nak lu koy maye liggéey waaw comme ni ko sama idole bi bi muy toll ni ñun ni mu ko demoon defee ba tey jii ni mu yegg fi mu yegg bon sama club de rêve mom. ñaari club de rêve la am ñooy sama club mooy Barcelone ak euh, bon dañuy teel a tëdd voilà yeewu teel a yeewu dem resto en groupe waaw ñu xaarante def ko comme ko di defee parce que euh, nee nañ vie vie de voilà loolu dañ ko war a sentir waaw ndax buñ ne équipe euh, dañ war a sentir xaarante heure jot waaw ñu demandoo resto lekk après bon ñu génnandoo tamit en groupe voilà après ñu yéegaat en groupe dem toog waxtaan waaw parfois yenn booy tamit dugaat seen néeg nelaw ba heure añ voilà après ñu génnaat même heure voilà defa rassemblement comme nañ koy tàmbali dafay xaarante ba ñëpp ñëw après ñu demaat añ voilà siestat après 16 heures fekk ñu terrain dem entraîner voilà après ñëwaat sangu waaw préparé wu xaar diine jot après ñu dem diine waaw après dîner ñu yéegal nank dem waaw ku war a dem defi soin def sa soin voilà dama fi nekk pour nation bi et lépp loo xamante ne mu ngi si man bon je le fais pour l'équipe ak pour Sénégal parce que ñu moom lañ am voilà kon tey jii nii lépp loo xamante ne ni yàlla def na ko si ñun rek ñun dañoo dañ ko dañuy ñëw pour waaw def lépp pour suñu pays parce que moom la ñu am waaw ñu ne nag dañuy def loo xamante ne nit tamit fekk voilà euh, nekkul si ñun li nga xamante li ne ci ñun yëpp parce que ñun mënuñu créer dara li ñu jàng rek la ñuy ñëw def ak li ñu jàngal waaw loolu nag la ñuy essayer voilà ñëw def ko ci équipe bi ba incha allah li nga xamante ne moo ñu fi indi ak li sénégalais am yaakaar si si si ñun bon. ñu defal leen ko te nga xam ni tamit dañ koy def euh, dañ koy defak ak loo xamante ne ni suñu xool lañ ko defee voilà parce que comme lii wu naan drapeau bi waaw drapeau bu foor la pour ñun et voilà ñun moom dañ ko respecté et on fera tout incha allah pour que ñëpp waaw bég ci ñun ak tamit li ñuy xaar si li ñuy wax rek euh, football Sénégal bi ñëpp gis nañ ko. instant bi moom parce que gars yi moom affaire bi mu ngi dox voilà ba foot local bi instant bi nii rien à dire ah, macha allah waaw ah, lépp ngi dox te championnat boo xamante ne la aussi bon gars yi bon y a des bons joueurs voilà nekkul championnat boo xamante ne ni tey jii nii waaye mooy loolu quoi championnat boo xam ne tey jii nii war nañu mën a dégg fu sori en tant que champion. Euh, championnat Afrique yëpp comme yeneen yi fi leen di dégg ak yooyu noonu Sénégal parce que talent bi yëpp a ngi fa voilà merci beaucoup bon question yi bëri na mais bon on a pu voilà def notre mieux voilà pour mën a tontu yenn question yi et que kontaan nañ ci yéen bu baax bon leen rek lañ leen di ñaan que ngeen ñaanal ñu fi ñu nekk voilà waaw li nga xamante ne ni moo ñu fi indi yàlla defal ñu si jàmm ñu indi li nga xamante ni moo ñu fi indi yóbbu ko Sénégal si jàmm ak salaam ñu wax nag ñëpp képp koo xamante ne ni Sénégalais la waaw di leen sàkku ñaan fii ñu nekk ñaanal ñu bu baax a baax li nga xam ne moo ñu fi indi incha allah ñu jël ko indi ko Sénégal merci beaucoup.